eh salaam salaam c'est Boy Niang eh mes grands frères Bombardier mais vraiment on te félicite on t'encourage grand frère inchallah le grand champion Bombardier beaucoup de courage pour ton combat à Pologne inchallah il faut l'habitude de le on est tous derrière toi inchallah beaucoup de courage et de détermination pour ton combat grand tous les leaders du Sénégal on est tous derrière toi inchallah grave victoire ndam rek yee bu jeexee jeex na jaajëf grand bi jàmm ci yow. asalaamaaleykum waa adduna asalaamaaleykum waa Sénégal tey nag kan moo xewle ah waaw ah, sunu grand muy bombardier ah, ah di ko borom deux fois roi des arènes ah ñu ngi lay ñaanal sa combat bii nga jëm yal sunu borom taxaw bu baax baax baax yal na la yàlla defal ndam lu sedd guy si barke Seydina Mohamed ah ñun ñoom ñu ngi sa ginnaaw you know waaw ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi lay encouragé bu baax a baax a baax a baax waaw ñu ngi lay ñaanal yàlla sunu borom defal la jàmm. le 23 incha allah jaajëf. waaw mais le B52 ñu sénégalais ñu sa ginnaaw ah, le 23 fële sa Pologne ñaan na ko sénégalais ñaanal wax dëgg yàlla axul làmb yëpp yàlla suñu borom defal ka ndam lu sedd guy ci barki Seydina Mohamed ah ndax drapeau Sénégal la yóbbu ci Pologne kon nag gëmal ni ñun bëri Sénégal yëpp ñu sa ginnaaw man Baye Mandione nag maa ngi lay ñaanal yàlla sama borom defal la ndam comme li comme li ko samay moroom yi bët defee ci barki Seydina Mohamed ndam lu sedd